Sall pareillement donc il va falloir nit ñi xam ni situation sa évolue et puis li nga xamante ne mooy wàllum élection présidentielle dafa am nu muy demee te bu ñu àggee ci euh, cappaandaw ga conseil constitutionnel en la toutes kon xam naa dañuy déglu rek le mandataire de Aïda Mbodj waaw mu ñëw waa yëkkati ay kàddu mu war a yëkkati ay ñu xam ni kon liste bi waroon a jàll tey di xamal sénégalais yi nii di xamal sénégalais yi nii fu mu toll nii presse bi dañoo booloo doon benn di waxee ci benn benn benn kaddu ci média yi yëpp mm-hmm. loolu daal moo ñuy faciliter liggéey bi mm-hmm. la bu weesoo loolu bu loolu amul mataar mm-hmm. ah euh, énergie yi yaakaar naa yi ñuy fournir bëri na lool te finalement vraiment ñoo bokk ndey bokk euh, baay et puis ñun ñëpp ñooy liggéeyandoo ensemble ba tax na ñu dëkkandoo micro yi ñëpp di waxandoo mm-hmm. ñii di commenté ñii di joxe li nga xamante reporté ñii di joxe information yi alors voilà ñu jël mandataire ah ma ñëw dem venez venez ici ah merci Aïda ah léegi léegi xaar leen xaar leen soo paree ah ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal Ça va bien. Bien. voilà donc ñu ngi leen di sant di leen nuyu. vous prenez d'abord en français après en micro yi ngeen di wàccee ah. donc nous vous, nous vous saluons tous, chers journalistes. Je suis Serge Louis Déthié Cissé, mandataire national de la candidate Aïssatou Mbodj, connue sous le nom de Aïda Mbodj, de l'Alliance nationale pour la démocratie And Sahel Ligue. Donc, comme vous le savez tous, nous étions en fin de liste Après le tirage, nous étions placés à la 93e et nous venons de subir le test du parrainage. Et ce test du parrainage a donné comme résultat que les militants qui ont organisé le congrès et qui nous ont parrainés, la commission vient de déclarer que ces militants ne sont pas dans le fichier à leur disposition. Raison pour laquelle, avec une telle information, il se trouve que donc la candidate Aïda Mbodj en fait est éliminée d'office et ne pourra pas faire de second tour. Hmm. Une clé nous a été remise pour pouvoir identifier nos militants qui ont été sur le terrain, qui se sont démerdés avec leurs pièces d'identité pour parrainer notre candidate pourquoi ces militants ne sont pas dans le fichier électoral. Ce qui nous permet donc de douter du fichier qui est utilisé au niveau du Conseil constitutionnel parce que nous n'avons nous avons aucune maîtrise par rapport à ce fichier-là. Et les mandataires sont très vulnérables parce que en aucun moment il n'est prévu une disposition qui permet aux mandataires de pouvoir, avec leurs informaticiens, tester quel est le fichier qui, est chargé en fonction des candidats qui se pour être testés par rapport Donc c'est l'information que donc, je voulais vous donner. Maintenant, au niveau de notre directoire, nous allons étudier la clé, voir les causes de l'absence de nos militants et sympathisants dans le fichier électoral du Conseil constitutionnel et nous aviserons dans les jours à venir. Donc, euh, maa ngi tudd Serge Lidéthié Cissé. Mhm. maay mandataire national alliance euh, candidate Aïssatou Mbodj. nit ci gën ko xamee si Aïda Mbodj ñun noo nekkoon fin de liste ñun noo doon jeexal liste bi noo nekkoon à la quatre-vingt-treizième place si tirage bi avec tous les risques saa ça peut générer dem nañu commission bi xool na suñu parrains yi ñu ngi déposé cinquante huit mille neuf cent soixante quinze parrains mais commission bi nee na parrains yu ñu déposé toll na nombre boo xamante ne ñoom gisuñu ko si fichier bi donc ça veut dire que pratiquement suñuy parrains yi nekkuñu si fichier électoral bu conseil constitutionnel yore donc militants yoo xamante ne ñoom seen carte d'identité yi ak numéro d'électeur fu ñu war a voter tous ces trucs la nekkul ci seen fichier jox nañ ñu benn clé bu ñu laajtee pour ñu wax ñu ñan la jox nañ ñu benn clé nañ ko étudier au niveau sunu directoire pour xool lu tax. ñu ñooñu parrainé docteur euh, Aïssatou Mbodj nekk ñu ci fichier électoral bu compte euh, conseil constitutionnel yore bon de toutes les lu ma mun a wax en tant que mandataire mooy le hmm. fichier bu conseil constitutionnel di liggéeyee n'a jamais été éprouvé par les mandataires ça veut dire que mandataires yi ñu leen ci defal démonstration mandataires yi mun si mun ko tester avec seen informaticiens yi mais à partir du moment où ñoom ñoom nooy dogal nee nañu suñuy parrains yi nekkuñu ci fichier électoral bi. ñaata ci parrains ñoo nekkul ci fichier électoral bi wala kii bi yëpp la seen parrains yëpp la. Euh, trente trente cinq pour cent nee nañ trente cinq pour cent nekkul ci biir fichier électoral bi. trente cinq pour cent seen parrains yi voilà c'est ça te nous on avait une organisation très bien structurée au niveau de la diaspora et au niveau du Sénégal organisé nañu congrès au niveau du CICES. E mhm. congrès bi enregistré pas moins de deux mille personnes. Mhm. benn dimanche donc dans les sections. la remontée des fiches lépp def nañ ko si yoon saisi yi jël nañu ay étudiants yu xarañ ñu def saisi yi correctement informaticiens yi vérifié lépp leer mais puisque ku am pouvoir de décision mooy conseil constitutionnel te ñoom décidé nañu que suñuy parrains yi nekkuñu ci biir fichier bi pour trent cinq pour cent donc ñun loolu la ñuy mën a jàpp. parce que parce ñoom nooy jël. lu ñu fas yéene def mooy euh, jël clé boo xamante ne ñun dinañ ko dem étudier. xool lu tax ñooñu nekkuñu ci biir bi ba après jéem a ñoom ban fichier la ñu war a mën a que par souci de transparence conseil constitutionnel après war na mën a wax ci ban fichier la liggéeyee fichier boobu bés bu ñu ko mettre à la disposition du public dina permettre mandataire yooyu ñu rejeté yëpp depuis premier mandataire bu abusé woon mooy bu Boubacar Camara bu mu doon nekk lu ko jaaxal mooy mu jël paie ñu gis pratiquement 7000 yoo xam avertir na mandataire yu yu topp si ginnaaw pour ne attention logiciel bi suba dina ñëw wàññi ñu bëre parce que dañu ni nekk nekku leen si biir fichier bi. donc loolu laa amoon lu ma doon da ngeen di joindre léegi euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy opposition bi pour mën a def li nga xam ne mooy blocage parce que wax nañu ni dina am benn front bi nga xam ne dañuy ñaawlu li nga xam ne mooy euh, affaire fichier électoral. man lu ma mën a wax mooy ñun bi ñu demee suñu directoire nañu de façon très sereine. Mhm. parce que ñun si démarche mhm. de façon très sereine on va faire une analyse de ce qui s'est passé et certainement on avisera. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On avait on avait déposé 58 975 mooy le maximum. Mhm. voilà moom la ñu déposé woon. Saka jërëjëf. merci beaucoup. 58 975 par mooy le maximum autorisé par an. 58 975 par an, c'est le maximum autorisé par la loi. et le conseil constitutionnel a déclaré. actuellement ni euh, ki nga xam ne moom mooy euh, maître Ciré Clédor euh, moom moo génn parce que ki nga xam ne moom moo nekkoon ci dernière place am na ay xibaar yu ñuy wax waaye dañuy bàyyi ba mu ñëw rek dina leer maître bi ñu ñëw kon kon dañuy xaarandi ki moom mooy maître Clédor mu